asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV bal bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal tey ñu ngi fii ci Médina ànd feeg g mu seet si ki nga xamante ne mooy Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye moom lañ tuddee woon drapeau bi le 25 décembre mu ñëw indil ko drapeau bi damay bàyyi g mu nuyu su ma paree ma jox Ablaye Mbaye mu nuyoo g doomu day buur siin borom firi la <laughs> yaay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu waa Malika uh, yëmbal benn baraag buun Kër Massar àll bay ñaax montagne di nuyu waa ñàgg ñàkk rob Tivaouane Pël Daaru Cubu di nuyu Jaxaay 1 di nuyu waa Kër Massar ci la péritance di nuyu waa montagne Babas bi di nuyu su may xarit su may am di jàmm suma gaay may àndal ak ñi may ñaanal képp ku ma jàppale ci làmb ji maa ngi lay nuyu rawatina tamit di nuyu suñu frère bi ñu fekk Ablaye Mbaye di ko nuyu di ko siyaar di nuyu famem di nuyu ay waajuram ak ay njabootam ak ñëpp ah. di la nuyu Pël di nuyu suma adversaire Boursine di ko sama adversaire woon Boursine di ko nuyu di ko ñaanal jàmm naan ko waa làmb nii la quoi buñ tollee ci làmb dañuy jëflante def fula ak fayda waaye bu jeexee jeex na quoi vraiment ay minutes ñuy boole bu jeexee jeex na lim yéene boppam loolu laa yéene suma bopp comprendre nga lim yéene famem ndax koo gis muy sonn yaakaar naa teral say waajur ak sa famille moo la tax a jug ñu nit amaana noonu quoi kon ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko xamal ni moom jàmbaar la champion la di nuyu tamit rawatina waa Medina fi nga ma fekk ndax fii su may famille fa nekk su may su may maam sama sama waa kër ñi fi nekk maa ngi leen di siyaar di nuyu tamit suma xarit Pamatar bu baax a baax a baax a baax gaa yëpp ak waa service di d'hygiène comprendre nga di nuyu di nuyu di nuyu di nuyu waaw di nuyu sama gars yëpp comprendre nga di leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay. ana loxo bi. waaw <laughs> loxo bi tare na <laughs> damm damm bi tare na quoi. waaw. non comme ça waaye damaa damoon ñu xëy suba gi damm bi wér <laughs> comme moom dafa jàng Free Fight. jàpp sama loxo wi ñaar ko damm ko <laughs> damm bi tane na. woon bi. la woon. mbër Free Fight <laughs> yamal ci man nag comme que damm nga sama loxo bul dammaat beneen loxo mbër. waaw jàng xeexu mbedd. waaw loolu la wax. ngir keroog xeexu mbedd. ah bu damm sama loxo bi xeexu mbedd boo xam ne damm loxo bul damaat loxo ngi lay nuyu di leen di di leen sant di leen gërëm vraiment di gërëm waa Medina di gërëm suma famille yëpp fi ngeen ma fekk di gërëm sama waajur bu góor di gërëm sama yaay bu baax di gërëm euh, waa Medina di gërëm Baba ci li mu def. vraiment rafet na donc di delloo njukkal waa Medina yëpp ak euh, suma xarit yi nga xam ne bis bi keroog ñoom ñëpp franchement tuutaluñ ma ñu ma ñëw nañ jàpp ci gunge ma stade mën naa lim juum mais maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm donc di gërëm général ci li mu def vraiment ah di ko rafetlu li mu def vraiment kontaan naa si trop di di gërëm ñu mu àndal parce que mënoon na ko ci bañ a fekk donc depuis le début mu nekk nit ku baax nekk nit ku oyof. donc arrêté gul di ma woo donc boobu léegi ñu ngi déggante franchement di delloo njukkal Bour Sine aussi di ko ñaanal bu ko bu amaatee combat yàlla sunu borom may ko ndam. nee na amul vict amul défaite match nii la. <laughs> Bour relax <laughs> bon de façon man encourage naa ko parce que je pas xaw ma lu bari di lam comme que général moo jël drapeau bi man dama koy félicité ñooñu ñu nekk ay nit yu yu baax nekk ay jeune franchement nekk ay jàmbaar. keroog ñu bëree bëri bu bëri bu neex bëree combat bu neex a neex a neex a neex a neex donc ñoom tuuti luñ bés bi quoi joxe na joxe nañ li ñu am yëpp ñu nekk ay xale nekk ay jàmbaar ma leen di ñaanal bu baax waaw. c'est la fois ñu tuddee ma drapeau kontaan naa si parce que Medina bëri na autorité bëri na ay jàmbaar yu fi nekk bëri na ay nit yoo xam ne vraiment ay jàmbaar lañ baaba bàyyi ñëpp tuddee ma ko dama ci kontaan trop parce que man xale laa xale bu ndaw laa bu yëkkatee lu day ni jox ma ko ça veut dire que suñu liggéey ñu ngi ciy progressé ça veut dire que nit ñu ñu xam ça veut dire que waa Medina wóolu nañu donc ñu leen di delloowaat njukkal bi yëpp donc ñoom ñoo ko moom quoi c'est la première fois. drapeau bi da nga bëri. non non <laughs> def na bon bëgg naa làmb mais du ma dem stade puisque dama xawoon ragal mais keroog ak gis naa non violence bi. ak gars yi ni ñu organiser lamb ji donc dina ma gën a may courage ma may may demar stade dem nag parce que su ma mag mbër la mais bu daan bëri rek laa daan dem Forza 2 wax na bàyyi na mais bëgg naa ñëwaat ci làmb ji. muy bàyyi la ah dafa metti et que la pression gars yi xam nañ li may wax parce que sa mbokk bu la jege buy bëre moom c'est c'est c'est très compliqué donc man <laughs> bokk naa ci ñu ko wax xam <laughs> mu bàyyi quoi dafa metti trop trop trop trop franchement sas bu diis la quoi parce que parce que sport individuel la quoi damul tricher amul def dara c'est très compliqué mbëri ay jàmbaar lañ vraiment. bi ñëwee si gis ambiance bi nga mu gaaw ambiance bi puisque fu ma duggee ma <laughs> xool naa ragal parce que journaliste yi nit yi gars yi gars yi gars yi pression bi chaque instant bon bëggoon naa mu gaaw a jeex parce que. miinuma caméra yi lu bëri mais bu ma duggee ambiance bi kontaan trop trop trop trop xam nga gis naa jeunes yi gis naa sport bi ni muy nu muy progressé gis naa gars yi ah donc ma si profité si occasion bi di wax sponsor yi daa am sponsor yoo xam ne dañoo war a ñëw di si làmb ji par force parce que ñoom ñi ngi gagné Sénégal ñi ngi gagné li ñuy gagné ci biir réew mi donc nañ jàppale ñi ay jàmbaar lañ am nañ seen doolee am nañ kàttan bi am nañ sañ-sañ bi mais dañoo ñëw di liggéey donc man maa ngi wax général léegi mais da nga war a oto yu rafet am ay kër yu rafet ba yéen ñi nekk di yëngu ci làmb yéen ñëpp da ngeen ci war a gis seen bopp donc na Sénégal gaayab ñëw sponsor di ñëw président jàpp si ñu jàppale jeunes yi parce que jeunes yi soxla nañu lool surtout vraiment. décoré nañ ma ci. ah Jaw décoré na ma waa. ah il est exceptionnel Baba encore merci à Baba <laughs> merci beaucoup à Baba et maa ngi koy ñaanal lii nii mu sumb lii mu jublu ci affaire affaire làmb yi affaire combat mu réussir si parce que Baba nit ku baax la donc boobu léegi mi ngi nekk ci Medina bi mi ngi ciy def affaire yu bari bari bari bari bari loo xam ne mënuñu tudd lépp mais vraiment bokk na ci exemple Medina yi donc daf ñuy fekk suuf mu ñu yëkkati ci kaw ñu ñaan yàlla mu sàmmal ñu Baba et lépp lu muy dugg mu réussir si macha allah nit ku baax la. général nga toog ci kaw. bi ñu demee ba nga xamante ne ñoom ñaar ñoo des ñu bëre sa drapeau ci yan circonstance la fekk nan nga ko dundee ñu war a bëre sa drapeau ñaari mbëri mu nekk ñaari xale ñaari xale yu am ambition nekk ci yoon yow it nga nekk xale fekk leen si Baba Diaw tuddi la drapeau ñu woo ñoom ñaar ñu war a bëre. boo dama tiitoo man xaw ma dal la moom ma tiital parce que man dama leen di ñeewantal parce que même bi ñuy bëre si biir bëre bi. franchement après dama découragé quoi parce que munu ma gis ñaari nit di dóorante di gaañante xam nga man je suis quelqu'un de très sensible voilà donc surtout bi leen ardo woowee noonu après xam nga j'étais triste franchement donc ça veut dire que ça montre que ñoom ay jàmbaar lañ et loolu tamit taxul tax ñu gën a abandonné après man dama leen yërëm xam nga dama leen yërëm bëggoon laa ma ji jeex gaaw parce que ay doomu jàmbur lañ wala ay doomu jàmbur. ñoo ko signé ñoom ñi ñoo ko mais ça <laughs> làmb dafa metti quoi instant yi bëggoon naa mu jeex vraiment ay que aussi amoon naa sentiment de fierté parce que mënoon nañ ñëw def semblant tricher comme yeneen mbëri nu ñu def mais defuñu loolu dañoo wane seen jàmbaar wane seen wane nañ ñoom ay góor lañu en fait donc yàlla def général jël ko général nekk nit ku baax quelqu'un de très modeste franchement bu mu jëlee làmb ji mënoon na ànd ak fukk yuuxu daw jël drapeau dem nee na bëgg ko bëggee ko woon. loolu waaw non pourtant victoire la victoire la ñëw na il a vraiment très posé ñëw ci man waxtaan ak man gën ma encouragé. ñaanal foofu ñoom ñaar kan nga si gënoon a ñeewantal bi ci kan la gënoon métti combat bi. ñëpp laa ñeewantal. kan la gënoon métti. sérieux. seetaan loo gis. ñoom ñaar si ñoom ñoom ñaar laa ñeewantal ñoom ñaar ñëpp. ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lañ c'est vrai que nag avant combat bi man je me général moom bu jàppee Boursine xëy na bon da koy rey quoi mais après bi ñu ma demee ba sa biir combat bi Boursine il a résisté quoi ma xam na jàmbaar la et que promoteur bi xam na li tax moom boole ñaari mbër parce que feeñul fu nekkul xam nga. noonu la a demee parce que ñoom dañoo waxam. combat bi metti na trop trop trop trop trop trop combat la quoi. combat la et xëy na après ñu bëriwaat pourquoi pas. ah bu dee. <laughs> bu dee sama gars yi pare waat nañ non mais pas léegi peut être. Euh, moom nee na pare na xanaa Zé la ñuy laaj. ah <laughs> dafa bëgg xëy na xoolaat ci kaw mais bon xëy na làmb mun na leen boolewaat. ñu encourage Bour Sine mu amaat victoire ñu ko ne général am ay làmb ay combat yu bari am ci ay victoire parce que nit ku baax la et man gëm naa ne ñoom ñaa ñëpp dinañ bokk ci avenir làmb Sénégal parce que parce que gis naa. gis naa potentiel bi si ñoom gis naa jàmbaar bi si ñoom gis naa fit bi si ñoom. maa ngi ñëwaat ci yow. Zé sa adversaire ñu seeti ko. nee na kontaanul ci làmb ji gars yi di arbitre yi teguñ ko ci yoon ndax ay ponkal yuy xeex ba buuxante génn avertissement war fa am yoon lan nga ñu mën a wax ci waaw non xëy na xelama toll foofu rek ndax yaakaar naa làmb amu fa nekk fi ngay gisee quoi. ñun tolatuñ ci gisé suñu bopp ñëw na def fulla ma def fulla xëy na nag nit bu dara xewee te sa xol neexu ci mën ngaa réagir nu la neexee mais yaakaar naa ni làmb ci ku fa ñëw keroog xam ni géewu arène nationale bi moom ñëpp a koy rafetlu ndax rëy gim rëy ak suuf mu bëri kon bu bëre amee ba génn ci saaku yi am rek ñàkkul ni yaa quelque chose quoi te nag règlement règlement la nañ bàyyi yooyu ñun ñëpp ñoo far ay ay ay athlète lañ mais bu dara xewee nañ ko rafetal rek te xam ni jaam ak pexem yàlla ak dogalam ni mu demee man sax bëggeewu ma ko woon noonu. de match man loolu duma ma ci waxaat weesu naa loolu li am solo mooy adversaire la woon passé naa ko maa ngi xool suma kanam du ma mën lu dul di ko ñaanal jàmm di ko encouragé ndax yaakaar naa ñibbisiwu ma mukk ñu ne ma ah cam wala mooy loolu wala suñu xol yi neexul wala dajeeguma ak benn amateur bu ne ma danga maa bett ku ma gis dina ma encouragé félicité ma xamal ma ni carrément def ngeen yëfu góor def ngeen yëfu jàmbaar. kon ñaari ndam nag saa boo duggandoowee amaana benn ay génn wala ndam bañ faa am kon yàlla dogal na ne ñu am ndam dañ koy santee yàlla di xoolal suñ kanam moom décision yi mu jël ak nim mu ko rey ak ni ko analyser loolu moom la engagé mais li am solo daal maa ngi koy ñaanal jàmm naan ko bu jeexee jeex na quoi. fii ba suba mënoo koo mais c'est normal ndax bëre tamit ñaara koy def te saa bu làmb amee. nga taxaw ne tey duma daanu moom fii ba suba doo daanu yow sax su ma doon bëreeg yow nga ne ma du ma la daan su la neexee du ma la daan ndax su ma la jub see nga daw amaana fii ba suba du ma la daan mais loolu weesu ko comprendre nga loolu weesu nañ ko maa ngi koy ñaanal jàmm ko loolu laa am lu ma koy wax vraiment. sànq damaa seetaan sa benn nga ne moomin la toppuñ ko daal. <laughs> mais c'est normal xam nga tey ji <laughs> bu taxawee àdduna bi yëpp gars yi xam nga dafa jàng free fight boo jàpp sama loxo damm ko comprendre nga. damay xam ni kenn toppee ko dara rek <laughs> amul problème waa ah. ndax loxo bi mu demoon a ngi nii comme. waaw ndax moom comme nee na moo jàpp sama loxo damm ko ba pare ci biir waat xaw ma général dafa damm xaw ma lu ko dal ba yàgg mu ne est que sax daa damm ndax moom loxo gauche bi la doon dóoree kon wax na ay wax yoo xam ne bu ci nekk bokkul quoi mais daal yooyu du débat bi quoi làmb la woon def naa li ma war a def man sax ba may jógee ci làmb ja yaakaar naa ne dama damm loolu laa jàppoon mais dem naa def rajo ñu xamal ma ni carrément baaraam bi dafa debuwaate def naa li ma war a def daa waaw genre foxoj ñu bindal ma ordonnance jox ma ay garab fixel ma ko dans deux jours trois jours maam tan maa ngi ciy sant yàlla bu baax di xoolaat di ci suma kanam. bu bëggee ma may ko ko ndax xam naa ne li ma yor sama drapeau sama kër lax jeexalu ko bu fekkee drapeau bee ko ñor maa ngi biir Medina léegi léegi mën nañ ko téléphone ma jaar këram bàyyi ko mu sama yoon. ndax su ma su ma suma suma su ma du loolu quoi fi ma teg sama bët du ay drapeau ak yooyu noonu ay Boursine man dama war a doon roi des arènes kon dama jàppoon ni Boursine benn adversaire la bu bokk suma yoon damay jaar jàll maa ngi xool lu ci suma kanam moment bi quoi. Ah, tey nga bëree ba pare indi drapeau bi ñëw jox ko ki nga xamante ne moom lañ ko tuddee muy Ablaye Mbaye daan nga bëri drapeau di delloo drapeau wala c'est la première fois. non c'est la première fois léegi léegi rek maa ngi koy wax bañ toogee quoi nee naa ko. Euh, maa ngi soog a def lu mel nii quoi ndax man su ma xasaan ba bëree ba pare bu weesoo ñu déggante wala su ma la mënul dégg da ngay nekk sa bopp ma nekk suma bopp mais dafa am ay gestes yu mu def moo tax ñu nit ñu def lii quoi ndax moom parrain kese la ci bis bi te yaakaar naa bu la parraineel ki la parrain ki la parraineel nga war a njëkk a lijjanti ndax ku ne xam na ni Baba Diaw suñu morom la ay ay génération lañ bu ñu magantee tam bëriwul comprendre nga kon yaakaar naa moom bu doon jàpp ci promoteur bi la war a njëkk a jàppee mais lim seq ak promoteur bi ñàkkul ni seq nañ ko mais bu demaatee ba bàyyi ñu xel ñun mbëri rek loolu dafa rëy ndax tamit ñun ñu man man mi di wax nii man taxaw naa sant ko te déggaatuma mbër yi doon bëri ci làmb ji yëpp kenn ku ne suñu parrain yi ñu tuddee suñu drapeau te làmb ji drapeau yi fa amoon bëri na déggaatuma benn mbër bu ne parrain bi ñu tuddee suñu làmb ji defal nañu teraanga nàngam kon damaa jàpp ni moom ci journée bi mu bokkoon bokkoon kook ay nawleem def na ci lu ci benn nawleem deful kon ku def lu kenn deful da ngaa war a am lu kenn amul moo tax ma bàyyi suma yitte yëpp jugee Malika ñëw ba Medina ñëwaat ni laat ko drapeau bi xamal ni ko geste la def ku def dégg waa ku deful tamit doo dégg waaw loolu la fa leer kon ñu ngi koy ñu ngi koy remercier ci lim def di ko ñaanal te ku ne xam na ni moom mu ngi ci ay projet yoo xamante ne macha allah bañ toogee sànq balaa ngeen di yegg si ñuy waxtaan mu ngi yor entreprise am comprendre nga di ko di ko doxal. comprendre nga yor yor yor ay ay chantier yor ay immeuble yoo xamante ne mooy loolu maanaam daal li ñu doon waxtaan yaatu na comme ambition la ku ku am xalaat bu yaatu la ku kuy bàyyi xel seen la ndax nee na man maag ay ndaw ñooy liggéey te su ma neexoon ma ne kenn ku ci nekk ma yëkkati la ne la am lii doxalal mais damaa jàpp ni nit ki boo ko bëggee dimbali danga nga koo war a jàngal ni ñuy amee ba pare man naw ko ci wax jooju ndax bu ko neexoon mu puukare def yi gars yi di def fii bëri na fi jeunes yi fi am yàqamtuñu lu dul weekend jot ñu génn feemu def ay affaire tax bàyyi ñu xel ci seen koy José mais moom comme le fait que dem na bay bàyyi xel ay moroomu jeunam gëm ni moom li mu am ay morom da ko war a am kooku dañ ko war a encourager ñaanal ko ndax yaakaar naa Sénégal lu mel ni la soxla comme dafa mel ni tey yàlla nattu ma doon benn général am cër ci Malika ñëpp am fuñ ma teg man war naa rêver war naa mën a jaayante ba jéem a créer yeneen général wala yeneen jëmm yoo xam ne ñoo war a raw général ndax nit ku baax loolu ngay def quoi mais bul nekk ci benn mbir jàpp ni yow rek ko ko yooyoo yow rek yaa ko war a am wala yow rek yaa war a am lépp loolu bokk na ci mbaadoo euh, la wala ñàkk gëm mais moom li mu def mooy yëfi gor mooy yëfi jàmbaar mooy yëfu nit ku bëgg bu ñuy wax patriote man damaa jàpp ni li mu def mooy yëfi patriote ndax kii boo ko xoolee xam ni jeune la mm-hmm. comprendre nga mais ku xelam yaatu la ndax nee na Médina dafa rëy bëri nay autorité bu ko bu gaa bu neexoon gaa yi ñu dem xooli ñeneen mais moom buñ ko ci cité rek ñàkkul ni am na lu muy wane ba tax ñu jox ko loolu mais man moom fii laa koy waxee man jàppante naa ak moom vraiment te dara du ko dindi te li tax ma jàppanteeg moom mooy jëmmam ak ay gestem ak ay ambition man damaa gëm suma bopp dama am fulla ci lu may def te képp ku ma gis ni ci li nga nekk da nga koo gëm am ci fulla ak fayda damay pare pour ànd ak yow ndax damay xam ne ñoo bokk liñ bëgg di ko ñaanal jàmm nag li mu bëgg encore une fois moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal yàlla na ko yàlla defal ba fii ci Medina gi mu dëkk fépp fu ñuy wax immeuble bu fi gën a mag wala fépp fu ñuy wax entreprise yi fi gën a mag kenn bañ ko ci ëppale ndax jàmbaara te mu ngi ci yoon bi te xam naa ne tànk yi mu tegu nii boo ko changé wul un jour viendra presse bi yëpp dinañ daw di ko wëri waaw ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax naan ko bonne continuation. ñu tëj ak mooy adversaire la ma waxoon du ma ci jug maa ngi xool suma kanam su may morom laa soxla ndax yaakaar naa ni toll naa fu ma war a mën a bëreeg samay samay morom toll naa samay grand encore une fois suñ grand Yékini Junior toog na ay at bëréwul dañ koy ñaan sens ndax mbër la comprendre nga champion la maa ngi xaar diggante Reug Reug fa am ndam bare naa pour bëreeg yow maa ngi xaar daal champion yi nga xam ne ñu ngi fii man ma loolu noonu ñoom laa soxla di ci di ci tàllal sama loxo gaa yëpp képp ku ma làmb booleel daal amateur yi bëgg ko pare naa pour loolu. waaw ma ñëw tàggoo. bon li may tàggoo mooy dama leen di gërëm di leen sant ah, di gërëm général di encouragé Bour Sine d'ailleurs sax dama ko bëgg woo ko bëgg que général parce que moom souvent tam dañuy déggante donc ma koy encouragé bu baax xaaral ko ni bisimilah. waa mbër. waaw. naka ci loo nekk. yaa ngi en direct ak général. tey dafa maa ma ne yaa ngi en direct ak général tey dafa maa woon. mu wax si yow mu wax si yow ay wax yu rafet. en plus waaye ça va en plus encouragé na la. parce que parce que làmb nii la. vraiment bëri ngeen combat bu neex. loolu laa bëri ngeen combat bu neex et ku nekk mënoon a daan moromam ngeen nekk ay jàmbaar joxe li ngeen yor yëpp mais xëy na nii la waroon demee donc man ma lay ñaanal bu beneen yoonatee boo amaatee combat yàlla nga daan franchement jàmbaar nga et que la koy paas général la ngi nii général. waaw mbër sa Baye siyaar naa la naka dóor yi. ba nga jàmm xanaa reeragoo sa baat bi daa xaw a suufe de waaw mais ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay siyaar bu wér a wér a di la wax ni nag vraiment kontaan nañ ci yow quoi ndax jàmbaar nga waaw man duma denc di ko wax quoi ndax yàlla suñu boroom dogal na ni ñaari jàmbaar bu ñu bu ñu daje comprendre nga saa saa saa saa bu affaire yu méttee rek xam nga gars yi ñëppay kontaan. yaakaar naa suñu combat gars yi pour apprécier kon ay adversaire lañ mais duñu ay ennemi ndax ndax ñun ñooy mayante xaalis maa ngi lay encouragé di la ñaanal di la xamal ni ñun ñëpp ñoo far quoi waaw naan la bonne conti la bonne continuation waaw te bu beneen yoonee nga bàyyi damm yi nag ndax Free Fire boobu nga jàng moom di ci dam baaraamu gars yi bëgguma nga damaat beneen loxo bër waaw yow ñoo far ok jàmm ci yow <laughs> ok merci. ay eh, buur waa ñu déggoo. yow dinañ déggante incha allah. jaajëf kontaan naa jaajëf. donc lii may wane ni <laughs> lii may wane ni làmb fola la ah, gis nga gars yi ñoom ñoo bu eh, jeex na. xëy na des fois la caméra yi di tàkk yooyu noonu mais si suuf waa mais si suuf dañuy déggante koy encouragé franchement di ko ñaanal mu amaat beneen combat et bu ko amaatee yàlla na daan parce que nit ku yaru la moom aussi ku baax la ah donc suma dernier kàddu mooy que maa ngi gërëm général di profito di nuyu waa Malika dina wax ne général ku baax la ñu jàppale seen doom parce que nit ku nekk sa gox nga am voilà keneen di la pousse sa gox ñoo la war a pousse ba pare nañ ko dooleel parce que parce que jàmbaar la te mi ngi ci yoon bi li mu am nii xeeb na ko ku ko gis ak comportement mu xam ne xeeb na lii am na yeneen bés yu gën a garaaw yu koy xaar donc pourquoi pas mu war dem ba war a bëre ak ay Balla Gaye ak ay Modou Lo parce que ëpp ñu ko kàttan même corpulence bi la ñoom ñëpp ñoo tolloo te xam-xam bi mi ngi ci moom donc nañ gën a encourager seen doom yéen aussi mën leen di gërëm di leen sant di gërëm ñi mu àndal ñëpp ko wax ni ko lu mu def nii tuutiwul ci man et du làmb bi kese moo ñuy boole yeneen bés yi ñëw yëpp dinañu gën a boole ci ay làmbam saa bu ñu woowee dinañ ko si wuy si lépp lu mu xewle dinañu gis incha allah jox naa ko sama kàddu di gërëm euh, kër gi immobilier suma waa entreprise yëpp parce que xëy na man la ñuy gis maa nekk ci kanam mais ñuy liggéey vraiment liggéey bi yëpp ñu ngi sama ginnaaw mi ñoom Malick ñoom Zakaria kaw nekk Mohamed ñoom ñoom maa ngi leen di nuyu franchement bis bi jour boobu def nañ ci liggéey bi si war yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di profité di nuy waale baaba di nuyu suma waajur bu jigéen muy suma yaay mi ngi nii toog di gërëm suma papa aussi ak suma famille yëpp di delluwaat njukkal waa Medina yàlla mi am seen fay yàlla leen yàlla fay suma grand yi ñoom Jimbay franchement ñoom Sidi waa ñëw ñëwaale yëpp suma xarit ñoom Modou Mané faatu Mané ñoom Lamine ñoom ñëpp vraiment gis naa leen ñoom Baye gaa yëpp suma limee jum ñoom doof suma mag yi Mbay ñoom ñëpp ma jóg ah. maa ngi leen di gërëm di leen sant et que taxawu nañ ma wan nañ ma man seen rakk laa wan nañ ma xale laa et xam nañ lu ñuy xaar si suñu àdduna vraiment ñu ngi koy gën a préparé gën a xam fu ñu teg suñu tànk mais wax na leen dénk naa leen sama bopp di delloo njukkal suma sëriñ borom daaru noré nii donc moom tam dañoo jotoon digalam moo taxoon ñu nangu woon jël drapeau bi waaye bu ñu waxoon déet tamit duñ ko jël donc lépp lu ñuy waajal dañ ko ciy tàggu ma koy ñaanal yàlla may ko gudd fan may ko wér incha allah maa ngi leen di gërëm di sant jërëjëf HTC ñu ngi la kontaane ñu bàyyi eh, Polit yow ñu ngi ñu ngi rafetlu sa teewaay fii vraiment di la encouragé naan la waar yu moom nii kese la quoi xam na mais mooy loolu noonu jaayante nga ko vraiment di di nuyu suñu frère Ablaye mbay moom it encore une fois du ma denc di ko wax di ko ñaanal jàmm naan ko bonne continuation fi mu teg tànkam foofu la di nuyu suma gars yi ma àndal ñoom Pape ñoom Koli xam nga. di nuyu waa agent di jeunes yi nga xamante ne man mën naa ne man maay ñoom ñoom ñooy man te nuyu ko ci mel ni ñoom ndaw ñoom mbooj ñoom baara xam nga sama gars yi nekk foofu yëpp ñoom ñoom jóob xam nga gars yi daal su ma su su ma limee damay jum gars yi kullu ku nekk foofu ci service maa ngi lay gërëm di la siyaar di la jox sa wàcc wàccuwaay comprendre nga di nuyu suma copain bàcc di nuyu suma gars yi may àndal ko ci mel ni ñoom papa ñoom Tafa Soumaré Séri Sona xam nga ñoom Baye Sidi Gaynde bàmba borom tout droit à péage di nuyu ñoom ñoom Cheikh Tidiane Def Kaana comprendre nga di nuyu daal suma gaa yëpp ñoom Kéba suma tëyeer yi ñoom Pam Ndiago Balla Maama gaa yëpp maa ngi leen di bëggee sama waa koñ booy yi ñoom Baara aw ma seen fay ñoom Pap Pam Mbeen xam nga ñoom Xaadim Cheikh Fall booy daal waa koñ ba kullu rek ku ma jàppale maa ngi lay siyaar rawatina tamit suñ benn suñ benn waay Ifra. Ifra vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm mention spéciale mën naa ne def na geste boo xam ne amaana moom bu amul woon mën naa gën a ñaaw quoi mais Ifra ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax bi nga def kontaan nañ ci yow nañ gis nañ taxawaay bi comprendre di nuyu Laay Diop suñu grand Laay Diop moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ak gars yi nga xamante ne képp koo xam ne jàpp na ci làmb ji maa ngi lay sant suma xarit Alsaan borom Amérique di nuyu suma gars yi nekk Italie ñoom Modou Kane ñoom Ahmed Fall Zungale borom Espagne maa ngi koy siyaar comprendre nga di nuyu suma suma gars yi ñoom Edu ma fiyaaw Espagne bi yëpp ñoom maam Cheikh Anta Baye Fall yi gaay gaay maa leen di sant ak sama benn xarit Lamine borom France moom it jàpp na ci combat bi bu baax a baax a baax Lamine mention spéciale gis naa taxawaayam comprendre nga ak suma gaay yi nga xamante ne vraiment ba làmb ji taxawee ba léegi amuñu jàmm ñu ngi woon ci bagage yi di ci jàpp di réunion xam nga di di di di ci góorgóorlu bu baax maa ngi leen di sant ak suma grand frère yi ñoom daa ñoom it mention spéciale sama mag bu jigéen bi mën naa ni moo fi suma yaay roqoye aw ma fayam ndax moment bii moom ma moo ma uuf taxawee ak man taxawaay yaay quoi vraiment ndax ku ku sori ci suma xol la roqoye encore une fois mention spéciale suma mag bu baax ci man nga danga may ñaanal bay jooy quoi kon yàlla na sa jàmm yàgg li nga ma yéene yàlla na nga fekkee su njariñ ndax yaakaar naa yaa ma taxaw palaasu yaay fi ma yaay féete fa ma féete maa ngi lay ñaan ñaanal yàlla bàyyi la fi ba nga fekkee su may njëriñ quoi ak suma grand frère yi ñoom Babacar Isaaxa Sora gars yi yëpp encore une fois Pape Matar mention spéciale gars yëpp sant naa leen képp ku jàpp ci làmba ji sant naa la gërëm la suma benn grand tam Boston moom it aw ma fayam ah? paas gaa yëpp xam nga tamit làmb ñun lii lañ ci am am na ñoo xamante ne xam nga sa ndam rek lañ soxla quoi kon tamit ñun jaadu na ñoom ni ñuy sonnee si ñun ñu delloo leen njukkal amul ku lay defar dara di xalaat retour comprendre nga kon ñun it jaadu na man li may faral di wax rek nit ki bu la defalee lu baax boo ko waxul buy lim ay noonam na la ci boole. xëy na du sax ñëpp lañ mën a lim mais ñi nga xamante ne ñu mënta ñàkk la rek ñi nga xam ne tudduñu seen tur tudduñu seen tur tamit xam nga ñu ngi leen koy jégalu di wax ni xëy na xel matul ko quoi ndax ku lim daal faw juum bala mooy loolu mais daal ñu ngi siyaar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di santaat waa Malika bi yëpp ak waa équipe benn baraag mbooloo amuñu seen fay suñu grand Talla moom it xam ak course yi ñoom jiree jaata papa ak kullu mbër képp ku nekk équipe benn baraag mbooloo am combat ñu ngi lay ñaanal ndam ak suma boy yi nga xam ne ñu ngi malikam mbooloo ku ci mel ni ñoom Bulldozer am combat di préparé ak booy fam combat yëpp maa ngi leen di ñaanal ndam sant naa ñëpp gërëm ñëpp di ñaan yàlla na jàmm yàgg quoi ay ca mbokk yi jërë ngeen jëf ñu leen di jaajëfal di leen kontaane di jaajëfal Arfan naar di bégee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daje si beneen daanaan beneen champion merci